benn témoignage benn góor gu ñàkk soxnaam ak doomam buy nettali doom jigéen la am juróom ñetti weer ak soxnaam buy nettali ni ñu def ndeysaan ak bi mu mujjee déggante ak ñoom booy tur xewal mu nekk image boo xam ne c'est tellement triste que je crois que loolu war na gën a yeewaat nit ñi euh, di saluer aussi euh, la présence du ministre des transports monsieur El Malick Ndiaye mi nga xam ne trois heures du matin la bàyyi itam yëpp dem fa dem fa au nom président de la République monsieur Bassirou Diomaye fay parce que la présence des autorités à chaud day bokk ci li nga xam ne day soulager su ko defee ñoom il vont constater à chaud même les dégâts yi nga xam ne am na fa. Euh, Seyna Mohamed je crois que accident wu 6 kilos bi waroon na yee ñëpp mais Sénégal dañuy yeewu benn fraction de seconde après ñu nelawaat. le Sénégalais est amnésique ah. waaye day gaaw a mais loolu du gaaw a fàtte indiscipline la on trois trop indiscipliné. tey bu ñu jëlee code de la route ñi koy respecté ci dawal dawalkatu oto yi danga koy wàññi on conduit comme on le veut comme on le sent moo tax embouteillage yu bari ba demee Japon Chine les grandes villes lañu yor si ay oto ñun yoruñu ko et pourtant bu ñu yëpp ci Carrefour feu rouge ak ou sans feu rouge ils sont tellement ordonnés tellement rég réglo que discipliné que ku ci nekk la nga war a def xam ko ko donc bëri na aspect yoo xamante ne tey d' accord on indexe la technicité des voitures mhm. waaye aussi on doit toucher du doit mooy la discipline et je mhm. crois que ce gouvernement la seen combat premier bi ma jàpp ne moo leen di mën a may ñu réussir seen mission mooy ñu on du ñu yàq askan wi parce que am na ay kilifa yu ne ci réew mi mais il faut que qu'on apprenne les Sénégalais respecter les mesures disciplinaires yi nga xam ne moo tënku ci transport ci côté yëpp d'ailleurs boo xoolee la lettre adressée à l'administration sénégalaise par le président de la République monsieur Bassirou Diomaye Faye il a parlé de la ponctualité et de la constance et du respect du devoir di xëy huit heures di jël pause heure jóge dugaat sa liggéey wàccaat donc administration boobu ñuy ordonné ci wàllu discipline je crois que ça doit être horizontal ça ne doit pas être vertical indiscipline kese kese kese la ñu baal ma ndax bu may dégloo chauffeur bi kenn ci ñoom. parce que nee naa léegi quatre-vingt-dix pour cent euh, des accidents est dû au au facteur. facteur humain humain. facteur humain. mooy nit ki. nit ki d'abord mooy. El mu ngi ciy sul mu ngi koy sul souligner nee na d'abord tableau de yi nga xam ne moom loolu chauffeur yi di dawale. Mhm. day bëri ay gadget tellement que dañuy ne bu du ñu am visibilité. oui bi leen di permettre ñuy gis. nga jóge si loolu wax na ne ils vont faire le maximum possible ba renforcer. les moyens yi nga xam ne contrôleurs yi nga xam ne ñooy contrôler oto yi ci tali bi dañu renforcer ni moyens contrôleur nag bi ma si njëkk a jàpp mooy la police la gendarmerie ñoom ñi nga xam ñoom ñooy la sécurité d'abord routière la police pourquoi bari na oto yoo xamante ne ñu ngi romb ay policier bu ñu leen arrêté soit seen carte seen visite technique du ba day passé soit oto bi am na ay manquement soit chauffeur bi def acte de discipline soit du ñu yor permis mais lu ñuy wax seen permis dañ ci dugal ay 1000 francs ki 2000 francs suñ paree yoo ko policier bi ne ci tali bi ñu baal ma du ñëpp. dem na ba nag benn fléau boo xamante ne tey amul yaakaar bokk na si ñi nga xamante ne tey ñu si bari ñu ngi koy def royukaay si côté boobu. ñooñu tey policiers yi nga xam ñoom war a interpeller les voitures yi nga xam ne amuñu droit daw yi nga am ne teguñ ci yoon su fekkee dañ dem ba ci biir di def gré à gré ñu leen di ger ñuy bàyyi oto yi di daw boo dem accident boobu ils seront responsables. de même que la gendarmerie donc renforcer le service contrôle bi ma jëkk jàpp mooy renforcer les moyens de la police routière et de la gendarmerie qu'il que ça soit des moyens aussi nag euh, technique parce que actuellement on parle de nouvelles technologies de l'information de la communication mm. boo jàpp te oto jaratul nga koy bindal reçu da ngay jël euh, technologie bi xool noo ko si. kii yooyu dafa am problème. mais moo tax ma ne la nañ ko gën a mën a parfaire xam naa daañu si ñëwaat. voilà donc suñu parfaire loolu rek. loolu mi ngi commencé dina wàññi corruption bi ci tali bi. mu tegaat si leneen ne euh, par rapport ak euh, surcharge bi la surcharge. surcharge moom accident bu mu munti am moom la ñuy njëkk a tàmbale. mais dur sur les mesures yii tax. sénégalais bu ci nekk moo xam muy chauffeur bus kalandoo jagaja ak ku munti doon. Hmm. soo surchargé bu ñu la jàppee non seulement war nañoo amal le client ñi nga xamante ne amuñu place bu fekkee ay mesures la ñuy jël mën nañ ko ci boole waale comme proposition bi may joxe. c'est ça bu dee bus bi cinquante personnes lay jël. bu dee am na cinquante cinq personnes cinq personnes da taxaw ne ñëpp dañ leen di boole ci sanction bi parce que gis nañ bus bu fees ñu toog ci sanctionné le chauffeur ba pare sanctionné bus bi ci boppam ne ko boo demee ba ñëw vingt quatre heures wala quarante huit heures dootoo yabati. et je crois que d'endurcir ces ces mesures je crois que discipline dina am saluer benn côté aussi euh, le préfet les les les riverains les citoyens yi fa dal ndax bi accident bi amee lu muy guddi guddi guddi guddi solidarité am na ci entre sénégalais et par pratiquement boo xoolee euh, Bougane accident aussi cycle bi joxoon na fi benn proposition ne woon pourquoi ne pas avoir des hélicoptères médicalisés. defoon na ko si programme am waxtaanee ko ba la preuve sax bi accident cycle amee. ci saa si daar daar am na hélicoptère médicalisé yoo xam ne. boo xam ne moom la ñu utilisé woon. donc dafa fekk si woon da ko proposé woon. <laughs> Ah, bi ko proposé. avant ñu kii ñu ah appliqué à l'instant T. c' pour dire que ah y' a personnes ressources. de ce pays yoo xam ne ils sont pas du pouvoir. ils sont prêts à donner des solutions mais c' est des citoyens sénégalais. qui ont des solutions à ces problématiques. il faut que aussi saluer aussi l'hôpital damay faral di wax naan le bilan du président Macky ci concernant les infrastructures hospitalières. mais dafa réussir parce que say 6 kilos bi mu amee. accident mais taf taf ci diggante bu gàtt. accident accident bu bees boobu bu fa nekkutoon mais on aurait plus de morts. tey jii gis nañ accident bi am na ñoo xamante ne ci hôpital bu bees bu Kaffrine boobu président Macky Sall ci lañ leen yóbbu donc essayer aussi de trouver de doter. des matériels de dernière génération à ces hôpitaux. ak sapeurs-pompiers pour que ñu dinaa ñëw pour que ñu mun di bañ a évica de région à région. les sapeurs-pompiers ku nekk xam na ne ñoom ak Croix-Rouge pratiquement seen liggéey ñoom ñoo ko bokk ils sont toujours. Euh, sur le terrain sur le terrain sauver ou périr sauver ou périr mais nañ donc li rek. mooy les mesures yi nga xam ne le ministre El Malick Ndiaye jël na ko te wax ko damaa yaakaar ne applicabilité bi. warta am xaar nañ ko def à l'instant T mais dama jàpp ne bi ci jiitu. mooy il faut que Seydina Mohamed. que nous soyons disciplinés. wallaay discipliné billahi gis nga. da xool tey. Mhm. kalandoo yi ils sont pas en règle. Mhm. donc ci li ñuy daan seen doole. Mhm. les Jakarta ils sont pas en règle ci li ñuy daan seen doole. boo jëlee ba ci tey yàngoo yii. les yàngoo ñu ngi ni am nañu licence mais amuñu norme yi leen di permettre ñu def transport en commun. ndax da ngay si benn kàttan ne yàngoo la léegi ils sont en train d'amener les chauffeurs ñu ngi am ne ñu ngi fay seen i patente seen i droit de stationnement yor carnet et ñu ngi leen di yóbbu en chômage ndax taxi boo romb léegi néew na nga romb ñaar taxi ñetteel bu binduñu ci avant c' est dû une mal organisation du secteur du transport renouveler le parc automobile tey président Macky Sall di ci félicité il a renouvelé le parc automobile à travers les taxis les bus et dem dikk et cetera danaa ci parti boobu mais dama ciy laalal tuuti rek mooy renouvellement parc parc automobile bi il faut que aussi ñu xool ñu koy dispatchingé parce que bu ñu bëggee jël toujours les promoteurs yi nga xamante ne am nañu doole yor ay millions ki milliards yor cinquante bus cinquante taxi nangam bàyyi les chauffeurs yi nga xamante ne salaire la ñuy daw ak bagage yi nga xam ne moom la ñuy yeb illégalement moom la ñuy compenser pour mun a motal seen i soxla je crois que tey illég illégalité dafa am ci côté bi ñuy dispatché mais daal damay insister ci la discipline. la discipline nañu yar askan wi. réew yi développé yëpp ci discipline waaw bu ñu yaree ci discipline. jël charte yi ko ko respecté wu ñu teg la ci yoon. billahi gouvernement bi ñu ko defee fii ak 6 mois laa la may Sénégal def. c'est ça alors Saliou Joseph mi ngi koy rappelé euh, commencé moom joxe début